The te steering committee bi boobu am nañ GRA staff waaye the gis ne finance ministry trade office of the president yooyu yëpp committee members then project team bi nag biir GRA dangaa gis ne um, dañ ko set up staff yi nga xam ne ñu ngi jógee customs department of technical services in GRA domestic taxes ak IT ñoom set up pour um, ñoom ñu gis ne. we have a caller. hello caller. yes maa ngi alhamdulilah na def. sant naam. dama doon laajte comme affaire yi commercial bi. waaw. soo ko moom naka la. ndaw soo laa bëgg a laaj ko commercial. commercial si question bi mooy eh, ñoom ñu dee dawal commercial véhicule si. Mm-hmm. naka la leen VAT bi di affecté. waaw commercial si yooyu dafa nekk yi nga xam ne dañ ko exempt mm. yooyu boole eh, boolewuñ ne ñooy transport yi nga xam ne ñooy dee ah, comme banjul banjul yi birkaama birkaama yi nga xam ne moom la nit ñi di jëfandikoo yooyu noonu waxuñ leen ne ñu fay vaat xanaa kañ seen turnover yi su at bi di ñëw si tax suñu war a fay boobu dañoo continuer di fay ko waaye vaat bi moom commercial véhicule yi ñoo rek ne dem nañ fa ni la ñu fay ñu ñu fay as a consumer waxuñ leen pour ñu register au charge thank you very much Mati. Euh, ma ñëw si Mr sar Mr Sarr euh, as the senior tax officer euh, this question I always receive it from certain people. The Hello, we have a call I guess. Hello, call. Hello, caller? Hello? We seem to lose that line. Mr. Sar, uh, people who earn salaries uh, have a concern with this VAT. Does it affect them directly? Well, for the simple reason that VAT is a consumption tax, means the, the burden is on consumers, and all salary earners are consumers, I believe. So in one way or the other, it will affect us. But we don't expect prices to rise because of the input tax credit and the benefit that the, the, and the reform that the VAT is coming, it, coming up with, which is not presently in our sales tax regime. So the burden will not be heavy, I believe. Yeah, all waaw ok comme li nga waxee ne ñi nga xam ne ñu ngi liggéey di an salary yi ndax ndax VAT bi dina affect mooy ne comme so, nekkee consumer dal, soo jëndee bagage yu nga xam ne dafa am VAT dangaa fay VAT as a consumer waaw loolu la la affecté rek Why expect ne price yi dafa war a dem up because xam nga sales tax before fu mu nekk the rate is 15 percent The VAT bi tam su 15 percent la ba pare sales tax amutoon input tax credit yi ñoo joxe au refund yi xanaa manufacturers yi rek ko amoon waaye bi yoon dangaa ne koo xam ne register am refund yooyu noonu so VAT bi nga charge fooy importer yooyu warloo ko aat di warloo ko teg si sa bagage yi pour mu seer parce que loolu dañ la ko delloo jaral business yi ñu yokk seen price jarul ko waruñ ko yokk sax parce que dangaa gis ne lu ñoo fay suñ order bagage yi import o ñu def local purchase yooyu yëpp dafaa nekk ay credit for them woo xam ne dañ ko war a claim pour ñu refund leen thank you very much that's a good information for uh, uh, our viewers Uh, viewers, uh, I think we've almost come to the end of this program and uh, we wish you all a happy and joyous Tobaski celebration and take it easy with the run. This is Mumurinjai on the airways. Thank you.

الثمرات وبشر وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة